bànneex jàkkaarloo ak yéen ci la chaîne sénégalaise ci seen émission bu mag bi ñuy wax yóbbal ci wàllu diine di nuyu di ziyaar di ñaanal yàlla suñu kilifa diine yi ak fu ñu mën a nekk di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér di leen ñaanal yàlla yen bi ñu yenu ci seen barke maam yeeg seen barke bàyyi baax yi yal na ko yàlla oyofal te ñu àggale ko niñ ko bëggee ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal kilifa aada yi yàlla may leen wér may leen xéwal bu ñu àggalee seen mission ak jàmm ak salaam di ñaanal ñi nga xam ni dañoo tawat nekk ci lalu hôpitaux yi wala nekk ci kër yi wala fu ñu mën a nekk ñu leen di ñaanal yàlla wér yàlla dafa leen di ñaanal yàlla ñi nga xam ni caabi daf leen féete gannaaw yàlla yombalal ñu génn dellu ci seen njaboot ci barke yonent bi dem ba kenn doot fa nekk yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal di ñaanal suñu senegal jàmm ju yaatu ak salaam sutura ak teraanga bi nu xam yàlla bu mu fi jóg daay man may nuyu nag sama ustaas yi ma àndal ma tàmbale ci ustaas Cheikh Tidiane Ndaw nga xam ne ku miin émission yóbbal ci àjjuma miin nga ma ak moom ma koy nuyu di ko ziyaare ustaas Cheikh Tidiane Ndaw maa ngi lay nuyu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته أه، تبارك الله أجاندك داك نيو lay nuyu دي itam di la fay tabarakallahu fay ba gën tabaarakallaahu di la ñaanal yàlla yàlla gën la ubbi gën la dooleel ba émission bi tabaarakallaahu li ci war a génn ci njariñ yëpp yàlla génnee ko jullit ñi njariñoo di ñaanal télévision bi yàlla ubbi ko def ci barke def ci sutura amiin tabaarakallaahu def ko ci kilifa yi def ko ci njaboot gi fiy liggéey def ko ci réew mi di nuyu itam tabaarakallaahu sama mbokk oustaz bi toog nga xamante ni tabaarakallaahu euh, euh, tabaarakallaahu oustaz Seck di ko gërëm di ko sant moom itam di kontaan lool ci bokk ak moom plateau bi tabarakallah waaw oustaz Cheikh Ndiaye maa ngi lay fay di la ñaan yàlla yow tam yàlla gën a dëgëral sa xam-xam ci barke yeneent bi di nuyu nag oustaz Doudou Ndiaye Seck mi ma toggal ci sama wet nga xamni suma ko tuddé rek xel yeb dem ci kër Cheikh Ibn mban xel yeb dem ci wa kër Cheikh Cheikh Saad bu ñu leen di ziar au xeert di ko ñaanal yàlla oustaz du ndjay Seck ma ngi lay nuyu. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladi qad infarat bin ulaysu lukufan kufan ahad walam yalid walam yakun khatan yura law sharikun fi lazi minhu jara walam yakun li zaati btidaahu wala yura li si intihaaw waaw soxna nag ñu ngi lay gën la ziare ci bisbu tedd bi mi nga xamanteni moy Sidil ayyam pour yóbbalu jumaati di ziyaare suñu mbokk bi nga xamante ne maa ngi koy tooñ léegi sax naan ko yaay sunu ancien ci plateau yi oustaz Cheikh Tidiane Diop ma yàgg dégg <laughs> ma di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk xam-xamam ci barke alxuraan karim di kontaan ñëw ci émission bi soxna Ndaak di ñaanal waa dëkk waa waa waa waa bi yàlla yóbbul leen ca kanam. avancé leen yokk seeni i xew ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam soxna Ndak. amiin waay amiin waay oustaz du Ndiaye Seck eh, ñuy nuyu nag suñu mbokku sponsor yi nga xam ne ñoo ñu jàppale suñu partenaires yooyu nga xam ni ñu nekk waa tapis rouge nekk ci avenue Cheikh ante Diop ànd ak ñun ba dara dul dara te ragal ba dara fekk ko fa. Mm-hmm. moom bi muy dugg booba dafa dugg rek ak jikkoom li ñu wax ni baadoolo du teral ku mu xamul. waaye loolu dalul monsieur Xuma tapis rouge nekk ci avenue Cheikh Anta ma leen di wax ni ñi ngi ci numéro yi may lim ku leen soxla rek nga woote boo fa demee ñu faj sa soxla ci 33 842 63 42 wala nga def 77 865 37 37 wala nga def 70 380 70 703 80 08 70 703 80 08 avenue Cheikh Anta Diop nga egg fa ñu ñu defal lu ñu bëgg te xam ni xam nañ ni sénégalais dañu bëgg lu baax ñu ngi koy yombal di leen ko defal nu ngeen ko bëggee di nuyu nag ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ñuy Palen cosmétique ñoom ñoo ngi nekk ci 20 rue 25 avenue Blaise Diagne. ñoo fi indi yu baax yi nga xam ne Doudou ak Oustaz Cheikh lii soxna yi danañ koy aajowoo dana ci am sax oustaz yoo xam ñi ngi koy def seen biir oto ñi yor ko ci seen i kër bu bu tàngee ñi yore asma nga xam ne bëgguñu cuuraay li suñu defee pis rek tabarkàlla te ñiy jaamu yàlla ñoo gën a bëgg lu neex ñu ngi leen di ñaanal ku soxla yu baax yi rek gis nga maa ko teg ni ñu ngi ko mi ngi feeñ ci kanamu écran bi ñu leen di ñaanal jàmm nga xam ne boo leen soxlaa rek nga dem avenue Blaise Diagne wala nga woote ci numéro téléphone yi 77 446 cinquante deux wala nga def 77 976 86 82 ñu ngi avenue Blaise Diagne wala nga dem parcelle ak Parcelles Assainies ci école Dior wala nga dem ci en face boulangerie Wakam fu point yu baax yooyu yëpp waa Palen cosmétique ubbi nañ fa ay succursale pour bañ rek sonal nit ñi fu ay nekk rek soo wootee ñu wax la fu la gën a jege nga dem fa ñu defaral ci baax yi. du nuy di ziar nag sama partenaire bi may ànd tous les jours ñu koy wax complex Fatim mbay Babacar sama rak sama xarit di ma defal musóor yu baax yi ak chignon yi mi ngi ci 77 549 67 55 di nuy yaayam ajaratu de la Thiam de la Masselé di ñaan yàlla may ko wér bàyyi ko ci kanamu njabootam bi jaay Seydina Mohamed may wax mbay Babacar kontaan naa ci ma bu baax Oustaz Cheikh Tidiane sama temu semaine bi yëpp mu ngi nekkoon ci divorce maanaam passé ci jamono bi ñu gis ni lu lu lu bari la lu lu ki la lu lu lu fréquent la waaw passé lu lu lu fréquent la lu lu bëree bëri la ñu ñu ñu constater ko ci jamono bi te yalla mi ko sak validé na ko waaye gënalu ko ñu wara bayyi xel nak suñu bop nek di sama classe gi ak ñi melni man ñuy bayyi xel ni seydou tiaxan li li kat bi wax ni sey xare la ca dom jam nañ la ngay ñaan yalla mu mag ba nga fekk mu màgg barkeel jar na jigéen sëy ba dee boo ci amul doom am ci sutura ak dee dem àjjana jar na jigéen bàyyi ko xel Oustaz Cheikh Tidiane Ndao bismillahi rahmaani soxna ndaak suñu boroom subhaanahu wa moo bind doomu aadama def góor def jigéen mm-hmm. am nu mu organiser àddunaam mm-hmm. euh, ni mu organiser àddunaam nag mooy ni mu ko bëggee moom mm-hmm. moo tax amul benn jullit wala sax doomu aadama boo xam ne nee na rek libre na mm-hmm. ndax a yaxsabul insaanu an yutraka sudan yàlla nee na ndax doomu aadama bi dafa foog ne dama koy bàyyi noonu rek te duma ko contrôler kon yàlla dafay contrôler commerce bi di contrôler sëy yi di contrôler mbedd mi di contrôler biir kër yi. Mm-hmm. kon tabaarakallaahu euh, liñ la mën a wax foofu moo di ne àtte euh, la boo xam ne suñu boroom dogal na ko mu nekk solution. Mm-hmm. mais nekkul woon loo xamante ni moom moo ko gënal. ndax moom bu sañoon ñaari nawle yi ànd. Mm-hmm. dem ba suulante. waaye bu sañoon seytaane du ci am yoon. ba passé di ci am. waaye nag solution la mënul ñàkk moo tax soo demee ci yeneen diine yi ñoom nanguwuñu fase te nag loolu yàq-yàq bi muy indi dafa bari yàq-yàq bi muy indi moo di ne nit ki su fekkente ne dem nan ba nga xamante ni ànd bi mënatu la nekk waaw ànd bi mënatu la nekk xool neen ci côté yëpp mënatu la nekk lislaam moom nee na fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ixsaan nee na jàppal ci njëkk wala nga bàyyi ci njëkk su fekkente ne nag léegi danga nekk ci beneen diine ñu ne la sëy bi moom ba abadan la fase amu ci mm-hmm. la muy jur moo di ne ñaar ñi mënatuñoo ànd te kenn ku ci nekk léeg-léeg mu soxla boppam kon lu fay jur njaalo bu dul dog mm-hmm. loolu nag la lislaam di bañ su ko mm-hmm. defee nag léegi dafay daldi jox kenn ku ne liberté am jaarale ko ci fase mhm. mu am ay témoins am ñu ko seede mhm. su ko defee kenn ku ne nag mën a wuti keneen ko àndal mhm. loolu mooy li nga xamante ni mooy doxalinu lislaam suñ boroom nag subhaanahu wa taala indil na ko sax aw saar ci alquran expliqué na ni fase di demee yëpp am na pasem sunna am na pasem aada yooyu yëpp incha allahu bëgg nañ ci dugg waxtaan ci mu mel ni nag Euh, suñu boroom subhanahu wa taala nee na yi ma daganal yépp benn rek laa ci bañ mu di fase nee na fase daal wax dëgg yàlla daganal naa ko waaye ñàkk pexe rek a tax ma daganal ko waaye bëgguma ko mhm. su ma sañoon daal ñaan ñi ànd dañuy ànd ba abadan mhm. ngay dégg ñuy wax ne benn nitu yàlla mhm. eh, bu ma di yey guro du nangu sax xar guro gi ndax daf naan ñaari wëllëre yu yàgg lanu mhm. bëgguma leen a taxale kon kooku dafa yor jikkoy yàlla mhm. ba tax na kon euh, suñu boroom subhanahu wa taala li mu bëgg daal mooy ñaar ñiy sëy mhm. ñu muñalante muñalante yërëmante ndax itam euh, sëy da xool njëlbeen ga daanaka moo cay neex li ci des yëpp ak jaamu yàlla la waaw li ci des yëpp ak jaamu yàlla la moo tax euh, surtout ci côté góor ñi li leen di dénk moo di ne jigéen ku naqaree nekkal la waaw jigéen dafa naqaree nekkal ah. ba tax na bu sa xol <laughs> yaatuwul <laughs> euh, daanaka nekk nekk ba du yàgg euh, waaw waaw parce que boo gisee mag ñi ndeysaan bu ñu la daan yàpp bu ñu la mayee soxna ba pare dañ daan la may nañ la ko mën a tooñ waaw kon nag fokk nga yaatu xol di ko jéggal mhm. waaw may nañ la ko bëri ayib mhm. fokk nga am sutura di ko suturaal may nañ la itam ku bëgg taraanga fokk nga góorgóorlu pour teral ko mhm. kon ma foog ne ah lu sëy bi naqari naqari naqari yow góor gi soo amee ñetti jikko yooyu mhm. ragal naa ne lu jigéen ji wex wex wex wex <laughs> dana wexi mhm. waaw tabarakàlla jigéen bu fekkee yërëm nga ko <laughs> tabarakallaahu bu la <laughs> bu la tooñee nga baal ko ah suturaal nga ko li nga ko xamal ci ayib nëbbal nga ko ah yaa ngi góorgóorlu li nga am ci teraanga fooy woo ko ci biti. Mhm. yaa ngi ko koy terale bokk kook moom. Ah, ragal naa ne lu mu wex wex we itam ah, bu fayee ba dem itam mën naa dellusi si. Mhm. mais l'islam tëral na ci wàllu fase tëralin boo xamante ni surtout ci paseem sunna defe naa ne bu ñu ca jaaroon. Mhm. fase dana jafe lool. ba daanaka ah, boo dee xool fase cim réew boo compté téeméeri nit. defe naa da nga naan ñett ci fase ñi ci des ñëpp daañu nekk ak seen i jabar ndax ni lislaam tëralee fase ak nim ci sévère ah ma loolu oustaz naa ci ñëwaat léegi nag ndax ndax ndax tabarkalla macha allah euh, façon façon fase yooyu li ci diine wax. daanaka ñi nga gis ñu koy appliqué bareetul. ndax euh, parce que dafa mel ni daal dañuy jël kaasu ndox rek di naan yomb na trop euh, fase naa la goo xam ne bu ëllëgee nga ñëwaat di nga gis ñuy fase ay juróom yoon juróom benn yoon. di di fase di naat di àndaat kon léegi loolu. dinaa ñëw sax ci façon fase yi daanaka yaa ngi xesani xeer. naan jigéen ñi xeer yoo nekkal waaye jigéen ñi jàmbaar lañu. ay jàmbaar yi fekk tëdd loolu loo xamante ni bàyyiwul dara. may ñëw ci oustaz Doudou Ndiaye Seck di laaj maanaam passé ci senegal ak nekkin eh, borom kër ji jëkkër mhm. ak soxnaam eh, jigéen ak ak borom këram seen ànd naka la ko diine tëggee ba passé du gaaw wala kenn ku nekk bàyyi sa xel sa morom Oustaz Doudou Ndiaye Seck jërëjëf soxna Ndiak waxoon naa la ko ci émission bee passé mhm. dama la wax ne la alxuraan kenn xamul lu mu doon mhm. mu'jizatun lu dëy kéemaan la waxoon naa la sëy ci ñaari raay rek lay daw wa jaxal naa baynakum mawaddatan wa rahma ci raayu cofeel ak raayu yërmande rek lay def su demee nag ba loolu amatu fa jaratu ko nga dégg alxuraan dëgg dëgg yàlla dafa wax ci alxuraan ni inna zawjika fala yaxrujannakuma min aljannati fa tashqa mhm. inna laka an la fiha wala tahra wa inna laka an tazma fiha wala tadxa dégg alxuraan mhm. àdduna bi mu sosoo ba léegi juróom yi rek a fi am juróom sëy lekk naan solu ak féexlu wala bala ko la alxuraan waxee septième siècle hmm? maa la ko wax sëy lekk naan solu féexlu jaamu yàlla xool ni yàlla rabe aay bi hmm. aadama yow laay waxal de ina la ko àddun la ko seytaane ngi boobu léegi nag tekkul ngembam mi ngi mi ngi ànd ak ñun yeneen bi waxoon ne la inna seytaana yajri majra dam nit di deret di dawe ci ay sidit lay dawe partout il est présent ci dafa juri doom dafa séy ba boppam juri doom moo tax yàlla yeneen say di ko jamu shayatin am na ci fa fu bari ci alxuraan yàlla shayatin lay wax xool ni yàlla rabbe aay bi aadama yow lay wax de ina làkk àddun la ko iblis mi sa sa noon la mm-hmm. moo tax yàlla ñu yàlla musal ci seytaan wari sëw ci ko yàgg sa jabar soxna awa fala yaxrujunnakumaa min aljanat eh waay rikk bu mu leen génne àjjana waay fa tashka kon di nga texete di nga sonn lool xoolal sunu coono bi rek góor ak jigéen ñëppay daw daw rek laxa daxalax naa leen saani fii kabat sama benn rakk ndeysaan jàggul sax alxuraan ma sek bang ko koy tooñ di ko nuyu dan mu daan wax na ma kabat sax dafa diis ni ko yàlla bind rek xam lu 10 la mu ni nak nag bu attention dafa nànk boo demee àdduna rek di nga dem waye togal fi hmm fi mo gën waye la gis nga lam fa def ci gattal hmm dafa moy gis nga jigen de hmm bu laal bu laal awa ñew diko nax diko nax ba mu laal ko moo jigen jigéen ñi lu ne yéen ñu ko yobbe bu ñu gën ko ndak déggal ay bi ni ko yalla tëggee Mm-hmm. innaka laa tujuu fiyaa fii doo fi xiif wala taxraa doo fi rafle wala taswawu fiyaa doo fi mar wala tadxa doo fi nekk si ñaaglu si ñaaglu mooy diwut climatiseur maanaam daal bul yooyu ngay jaaru wala ngay dem di féexlu ci plage yooyu loolu mooy signal wala tadxa ñu ngi ko jëlee ci baatu duxa yàlla sañu koy wax duxa wal layli isa saja da ciy waat moo tax jigéen ak góor dañuy nekk rek mbaa ñu taqali ko te jënanti ñoom ñëpp marié Hmm? waaw wa tilkal hujjatuna atayna ibrahima ala xawmi madiyona narfu darajat man nashaaw inna rabbaka hakimun alim wabna loo isaq wa yaquba wa kullu hadayna wa nuhun na min qablu min durriyati daawuda wa suleyman wa ayuba wa yusufa wa musa wa haruna kazalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa kullu min as-salihin ñoom ñëpp takkoon jabar 18 mai nga sóotul dana yonent yàlla Isaa rek moo takkul jabar te téere yi am na lu bari lu ñu ci wax ko sax temul débat bi motax tax da ngay nek ak mom ci jàmm nekk bu rek moom oustaz wax na ko leg da ngay di and ci nek ak teraanga su ngeen ko ku ne dem yon waxoon naa la ko ci emission bi. waw afdalu talaaxu inda allah abghadu abda abdalu cheyin inda allah atalaaxu di yàlla gën bañ abghadu halal inda allah atalaaxu di yàlla gën bañ ci dagnal ko moy passé jabar parce que baat oustad sax wax na ko leg yalla du ci teug sar spécial sunu talaax su ko defé soxna ndaak yeneen wax ci addis bu wër ni góor ñi yéen lay waxal de góor ñi góor ñi maa akramahunna ilal karim wa maa hahanahunna ilal rahim ku baax dong moo leen di teral waaye ku bon ku bon ku soxor ki iñaan moo leen tëdd ndax jigéen ñoo jubal yu jigéen ñoo la waay dëgg la waay lii lan war a wax nag oustaz ko ñi waaye góor ñi di attention su ko defee soxna daa demal ba ci kanam waaw man loolu loolu nga wax loolu nga wax bëgg naa oustaz Cheikh Ndaw parce dafa ñëw rek di di di accuser sama mbokk jigéen ñi te ñuy jàmbaar yoo xam ni tabarkàlla macha allah bu dul woon ñoom àdduna bi du jàkk seen taxawaay seen fulla seen fayda seen jëfin nga xam ni am na ba léegi ay jigéen ñoo xam ni ku bëgg a dem teg leen ci sa kanam muy nuyu bu baax ku ñuy wax Lamine saar ci Espagne nekk ku sori koo xam ni di ci nuyu di ci ziar képp ku nekk ci àll bi di wut jom di daw ngir tere sa wajur tere sa njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal te yàlla musal leen ci bépp ayib ci àll bi mu nekk ba Espagne nag di koo xam ni ku fidèle la ci SS di seetaan émission yi di woote di ñu soññ ak di ñu di ñu gërëm di ñu encouragé bu baax a baax ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ñaanal yàlla képp ku nekk ci àll bi di wut teraanga yal nañu ko yàlla yombalal di ci xalaat may sa mbay ci itali di ci ñaanal mbay gay mbay ñoom Cheikh Amady Tidiane di ci ñaanal saal xale yépp ñu baax ñëpp fu ñu mën a nekk di ci xalaat Fat Faye muy jàmbaari jigéen joo xam ni jigéen ju man góor la am jom moo ko bàyyi ci àll bi xam nga ne bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi sa borom kër bàyyi li nga am lépp lu la gën a cher daw ngir wuti teraanga ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen ko yàlla yombalal te yàlla sàmmal leen du ñu bàyyi te yàlla jombalal leen du ñu indi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Cheikh Tidiane Ndao Euh, fi nga duggee nag fii oustaz du sekk Seck teerale foofu laay duggee li yàlla joxoñ góor ñi mhm. ni leen yéen jigéen mu ngi nii ku yàlla teral rek moo koy teral mhm. ku yàlla teddadil rek moo koy teddadil mhm. kon loolu oustaz Cheikh Tidiane jar na euh, ponk boo xam ni dañ ci war a def taxaw seetlu di ci insister parce que ki ñu muur jigéen jox la dénk la ko àddina ak alaaxira te nga mën koo seedeel ba bu dee dem àjjana responsabilité bi yëpp ci góor la nekk kon même bu jigéen waxee mbaam mel noonu góor war na am un esprit de dépassement. am benn comportement boo xam ni. moom la war a nekk ak moom ba passé du yomb Oustaz Cheikh Tidiane. waaw xam nga suñu borom subhanahu wa taala dafa aar sëy. Mhm. mais ci jikko rek la ko aare ci jikko ci jikko la aare sëy. Mhm. ba tax na euh, mu rëbb sax rambaaj bi ci kër gi. Mhm. rambaaj bi nga xamante ni tey. mën naa wax ci diggante ñaar ñuy sëy ba sëy tas mm-hmm. waaw yonent bi ne laysa minna man xababa mraatan ala zawjiha mm-hmm. nee na bokkul ci sama xeet mm-hmm. koo xamante ni yàq na dégg jigéen ci jëkkëram ba mu fase ko kon tabaarakallaahu kon li ñuy wax foofu moo di euh, góor ci boppam euh, warul di dénk noppam Euh, maanaam euh, ku ne. Mm-hmm. Euh, ndax nit ñi baaxuñu. Mm-hmm. te am na ñoo xam ne soo leen dégloo ñu yàqal la. dëgg la muy ci biir mbokk gi nag. Mm-hmm. ak ci xarit yi tabaarakallaahu yooyu yëpp dafay jara bàyyi xel. te dama daan dégg ci kilifa gu mag mu di Serigne Mansour Sy borom daara ji mu daan wax ni. bu ma kenn indil. xabaar boo xam ne su ma ko déggee du ma mën a ndékki duma mën a añ duma mën a reer waaw képp ku gis ci sama njaboot lu jaaduwul soo ma ko mënta fajal na nga tee sa gémmiñ kon tabaarakallaahu euh, yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne euh, jaaduwul sax nit ki di bett soxnaam di ko bett waaw di ko bett. war nga cee waxtaan waaw parce que euh, daan na wax ne euh, daan na ko wax saxaaba yi ne leen bu ngeen tukkee. Mhm. Euh, ñëw waxtu guddi. Mhm. fanaani leen ca jàkka ja. ba fajar ngeen julli wala ngeen yëglu. waaye yooyu yëpp pour bañ rek gis ci sa njaboot loo xamante ni mën na jur tabarakallahu laa koy def ndax law law law takashaftum ma tadaafantum moo tax espionnage dañ ko tere sax ci sëy topp sa soxna yëddu xool téléphone am surtout léegi portable yi li muy yàq ci sëy kenn xamul nu mu toll parce que xew-xew la phénomène la boo xamante ni wax dëgg yàlla li ñuy wax seytaane yàq waxul dëgg mais yàq na xalaat léeg-léeg nga jot message boo xam ne feneen la waroon a dem mu ñëw ci sa portable lu jëkkër wala mu ñëw ci sa portable jabar su ko defee boo ca tegee bët mhm. mën nga foog ne dara am fek tabaarakallaahu so teyul dara amu ci njumte rek la ba taxna na yooyu dafa bardi dafa jar di bàyyi xel lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni at taanni min allah wal ajalatu min ash-shaytan neena def ndànk ci yàlla lu jóge tey ci yàlla lu jóge waye gawtu ci shaytan la jóge kon nak dañuy dund ci société bo xamanteni man nu wax ne technologie bi dafa avancé d'une façon bo xamanteni ni ku deful attention rek ku ñu bëgg a man ne la laa kon loolu dana di sabab ay fase yu bari yoo xamante ni war nañ ko bàyyi xel. Euh, bi ci des itam mooy li ma wax léegi rek ci muñ. Mhm. Euh, gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa muñ na ci këram. ba yàlla sax moo mujj intervenir ci suuratu tahrim mhm. ci diggante saydatuna Aïcha ak saydatuna Hafsa mhm. ay jeux yu ñu doon def ci kër gi. ba yàlla mujj ne yonent bi sa njabootkat ñu ngi lay fooye ci biir kër gi mm-hmm. waaye bu ñu deful attention danaa leen fi jëlee indi ñeneen ñu leen gën ah. daa di waaw waaw mm-hmm. daal woo euh, ñi nga xamante ni ñooy goro yi te mooy Seydina Aboubacar moo ko mm-hmm. mayoon euh, Aïcha Seydatuna Aïcha Seydina Omar moo ko mayoon Seydatuna Hafsa mu ne wax leen ak seen njaboot ñu xam gëdd ki ñuy sëyal te mhm. bàyyi ko xel xam ne kilifa la su ngeen ko deful nag danaa kompaloo contre leen malaaka yi daañu kompaloo contre leen ñu baax ñi daañu kompaloo contre leen te danaa fexe ba jële leen fi indi yeneen jigéen yu leen gën mhm. kon muñ googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ci biir këram moom la ñu bëgg rek képp kuy góor di jullit nga roy ko ci loolu Euh, soo demee ba nga xamante ni itam euh, sa xol mënatu ko supporter ndax tooñ yi bari na. Mm-hmm. li nu bëgg mooy nga génn kër gi. génn kër gi ba sa mer <laughs> giif euh, mm. ndax gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ne ñeen fukki 40 jours génn na ko këram ndax mer mu mu mer ci biir këram ñi ne 30 jours la waaw euh, dem rek tëju ci benn pantre ci jàkka ji nangootu la génn <laughs> loolu bëgguma ñu ci wax ca kaw parce que am na ñoo xam bu ñu ko déggee <laughs> euh, bu bu bu uh-huh. ñu dee roy yonent bi dañuy daal di bëgg def mu def ñoo xam ne yonent bi seen kër di di ñoo xam ne yomb na leen torop génn yi yokkee loolu nag nañu daal di am buntu bu ñu taañaañale rek parce que génn yi dañu wuute parce que génnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnul i'tikaaf la dafa génn dugg ci néeg di fa jaamu yàlla génnul woon toog ci hôtel di fa recevoir ah, yeneen i jigéen wala mu dem ci beneen dëkk wala mu tabaarakallahu dem sax ci ay barab yu bakkane mhm. moom dafa dem rek tëju ci benn pentre ci jàkka ji dégg nga maam bu julli jotee mu génn jiite nit ñi. Mhm. su jiitee ba pare fatuwaat ci pentre dugul ci kër ga ci kër ga moom kay pare na ci ñoom. Ah. ndax ba muy dem sax waxoon na ne danaa toog fanweeri fan danaa toog weer yu ngeen ma dul gis. Mhm. ndeysaan Seydina Omar radiyallahu anhu dégg ne kat li metti yonent bi ci doomam la jóge mhm. ndeysaan ca mbaax ga mu daal di ñëw di leerlu daal di ne ah sang bi de kenn gisatu ko ci soxna yi te xam naa ne rek fitna tax. fitnay jigéen mm-hmm. léegi nag mu daal di ñëw ci rabaax moom moo nekkoon bëkk néeg bi mm-hmm. mu ne ko waaw euh, ana sang bi mu ne ko mu ngi ci biir mu ne ko waaw dama ko bëggoon a gis mu ne ko ah, joxe na ngant nag ne bu ko kenn gis waaw moom daal oh. joxe na ngant mm. Seydina Omar daal di taxaw ca bunt ba daal di jooru yonent bi ne ko su fekkee sama doomal la tooñ ba tax nga tëju lenn rek laa lay ñaan nga jox ma ndigal ma taxale boppam ak baatam rendi ko waaw waaw sedd na xol waaye loolu kilifa daan def yonent bi xol ba daal di sedd mu daal di ne rabax ubbil ko mu dugg mu daal di dugg bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi tëdd ci basan goo xam ne marqué na sax ci yaram wi bi sànn basan gu wow ci la tëdd mhm. mu daal di koy xool moom si na Omar rongo ñu tuuru mu ne ko waaw li la yàlla jox ci borom yi àlal ak teraanga nga mën a tëdd fu nooy nga fu foofu fii ba sa ba basa ngi marqué ci sa ci ci ci ci sa ci sa ci say faar ndax mënoo woon a wax nit ñi eh, ñu jox la alal ba nga doyal mu ne ko ndax da nga bëgg a jël daara ji ma nekk nga def kook nguur man daara laa yor yoruma nguur hmm. sina Omar nee na bi ma wëndeelee sama bët ci néeg bi maa ngi gis ndeysaan eh, cëggu tàndarma ju wow joo xamante ni nee na nekk ci la yonent bi di lekk di naan ndox mu ñuul kon dafa mel ni ñaar yu ñuul yooyu al aswadaani mhm. mu di tàndarma rek la doon dunde ci waxtu woowu ak ndox mu ñuul te dara tegu ko ko rek lu dul fitna jigéen waaye taxul mu fase kenn de la fitna ba di métti métti mu ngi toog di ko muñ waaw ci façon bi nga xamante ni tabaarakallahu moo gënal yàlla mooy lan wéet ak yàlla di julli nee na ndax Euh, balaa sama xol a sedd ma fàtte samay naqar ak samay tiis man yonente bi nee na ma taxaw jàkkaarloog yàlla kàbbar di julli am na ñoo xam ne nag seeni stress ak seeni naqar ak seeni tiis ñu ngi koy tabaarakallaahu dàqee ci déglu musique wala ñu koy dàqee ci dem ci place yu bakkanu yi mhm. yonent bi nag moom naqaram ak tiisam moo di ne saa bu amee lu ko metti mu jàpp daal di kàbbar jàkkaarloog boromam kon nag julli la nekkee woon ca néegam boobu toog di muñ fitna yi nga xamante ni moom la doon dund ci biir këram waaye taxul mu génne benn soxna taxul mu fase benn soxna kon nag képp koo xam ne tabaarakallaahu yaa ngi ci néegu sëy eh, yor ay jigéen na nga leen muñal ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam da leen da daan xool ki mu ne ko antunna sawaahibu Yuusuf yéen daal yéenay jigéen ña àndoon ak Yuusufa waaw fitnaal góor rek ngeen mën kon ba tax na euh, fokk rek muñ mooy base bi sëy daal mm-hmm. muñ mooy base bi mm-hmm. ci jigéen ñi ak ci góor ñi mm-hmm. tabaarakallaahu moo tax mu wax moom yonent bi sallallaahu alayhi ne bi ko yàlla invité ngan ba mu dem ci kaw asamaan. Mhm. nee na visité na safara visité na àjjana. waaw mais nee na li ko metti mooy bi mu duggee safara dafa fekk jigéen ña bari fa lool. ah waaw nee na bi mu laajee Malick. ne ko waaw ah. Seydina Jibril ne ko waaw lu waral. <laughs> lu waral jigéen ñi bari <laughs> safara. mu ne parce que dañuy suul seen njëkku jëkkër. waaw nee na suul seen njëkku seen njëkku jëkkër waaw. Ah nee na fu ñu meree rek. mosoo maa defal dara ji waaw fu ñu meree rek ne mosoo maa defal dara. waaw mosoo maa defal dara mosoo maa defal dara ñaari mbuus la ñu yor. Mm-hmm. jigéen ñi <laughs> mbuus bu njëkk bi dañ koo bët. waaw loo leen defal ci lu baax <laughs> dañ ko ciy sotti mu jàll waaw benn mbuus bi nag dañ ko ñëw ba mu dëgër loo leen defal ci lu bon ñu ngi ko fa garde di xaar bis ñëw rek <laughs> ñu wax la ko kon tabaarakallaahu ku nekk ak mbindeef mu mel noonu nag yonent bi nee na muñ rek ay tax doo ko fase moo tax am na ku ñëw ne ko soxna si tooñ na ma mu ne ko muñal mhm. waaw muñal mu ne ko ah mënumaa muñ yonent bi ne ko ah, ci faar leen leen bind nag te faar kenn mënu koo jubbanti waaw mu ne boo ko bëggee jubbanti rek damm ko mhm. te damm gi du dara lu dóorul dóor ko ba ñu yóbbu la polis walla nga xaw yi suturaam bañ leen di tudd ci journaux yi di leen waxtaane ci mbedd yi kon li fi nekk mooy suturaal ko muñ su loolu lépp demee ba nga xamante ni defar nañu defara defara defar ba nga xamante ni solution amul lislaam nee na nag jàppal ci njekk wala nga bàyyi ci njekk waaye daal di àtte guddeeg bëccëg mhm. di dóor guddeeg bëccëg kaw guddeeg bëccëg wax dëgg yàlla jekkul waaw jekkul nag tabaarakallaahu man oustaz buggoon naa xam bi nga xamee ni suñu suñu soppe ba hmm. borom barrière or ba ci Medina ki nga xam ni moom moom rek da yàlla wax tagg ko ci jikkoom jikkooy rafet yooyu nga xam ni ci leeram lañu bind lépp ci la lépp am hmm. ma lay laaj moom dem googu mu demoon nekke woor di dunde tàndarma ak ndox di sàbbaal yàlla génn këram ngir fitna jigéen naka la dellusee ak bi mu dellusee lan la def jeexital bi waaw lu jara bàyyi xel la parce que lépp rek daanaka ci yiw rek la mujj ndax ñi ko mayoon soxna ñoo ko ñaan njëkk muy Seydina Omar Seydina Abou Bakr ñoo fa dem ndax nitam nit itam ak nu mu mën a toll fokk rek mu xam ne eh, am nañu ko yàlla boole waaw ba tax na nu sa daraja mën a toll nu sa maxaama mën a toll am na ñu la yàlla booleel. Mhm. moom nag ñi ko yàlla booleeloon mooy saxaaba yu sel yu baax yu rafet xalaat. Mhm. moo tax bi ñu ñëwee waxtaan ak moom eh, dafa dal di dellu siwaat ci kër gi waaye liy problème bi mooy bi mu dellusee. Mhm. fekk Sayyidatuna Aïcha ci néegam ñuy waxtaan ñoom ñaar. te yi mu waxoon waaw. te xam nga Seydina Aïcha moo doon xaritam te tabaarakallaahu daf ko bëggoon ba pare lim gënoon a fonk Seydina Aïcha nag moo di ne xam-xam yonent bi dafa bëggoon xam-xam ba kii ëpp xam-xam ci ay soxnaam la gënoon a bëgg. Ah, loolu xam-xam rek loolu xam-xam rek wallaay wallaay tabarkal jéem a jàng rek. bi mu agsee eh, Sayyidatuna naa ne ko ah, yow de da nga ne woon weer nga fay am. te matul te weer yi manqué na benn fan. ah yonent bi ne ko waaw yow ndek yaa ngi doon compter bis yi kon man sama génn bi baax na ci yéen kat <laughs> waaw ah Euh, euh, wéttal bu baax la woon wéttal bu baax bu jógee ci kër rek euh, daa daanaka rek dafay daal di feeñ mm-hmm. moo tax fanweeri fan yooyu weexoon na xat ci soxna ya ndax kàddoom yu rafet yaag yar baag jëmm ju sell jaag tabaarakallaahu tabaarakallaahu yonent bi daal xetam ci biir kër gi rek beneen affaire la oh, waaw mu xëy nag daal di dem moo tax sayyidatuna Aïcha daal di dof ci saasi waaw bis bu ne mu ngi conté rek di compter bis yi ba mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent <laughs> waaye comme laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent bi suñu boroom nee na du wax mukk ci bànneexu bakkan waaw comme du wax ci bànneexu bakkan nag te waxoon na weer te ñaari weer a am weeru jant bi ak weeru weer wi mhm. weeru jant bi moom la yéeféer yi moom mhm. mooy janvier février mars avril mai ñun nag suñu weer mooy weeru jant weeru weer wi mooy al euh, alqamariya mhm. alors boobu nag léeg-léeg mu mat fan fan léeg-léeg mu manqué moo tax nag bi ñu ko compté ci weeru Euh, ndeke weer woowu yonent bi ñëw bis bi mu ñëw ci la weer bi feeñ kon nag yàlla dëggal na la mu waxoon ne danaa toog weer du ngeen ma gis tabarakallah Oustaz Cheikh Tidiane kontaan nañu bu baax baax baax la macha allah di di di rafetlu xam-xam bi tabarkalla yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko leeral may la wér nag sàmmal la ko bi jaay Seydina Mohamed lii rek moo tax la chaîne sénégalaise jóg di ñu fàttali sama kalaas gi ci taxawaayu jigéen ni mu amee solo may nuyu di ziar Serigne Mor Gueye di waay yàlla ju yàlla baaxal ku laa biir koo xam ni ku mu gis rek foog na ni war na la taxawu war na la jàppale ba sa coono jeex ba sa naqar jeex ñu ko yaan yàlla di ko ñaanal yàlla mu wér yàlla taxawal ko di bàyyi loo xel góor ñi di ci nuyu bu baax sëriñ Babacar Sarr transfert bu mag bi nga xam ni yonent bi rek la bëgg sopp Cheikh ba mu jeex tàkk gëm Serigne kër si di ko ziar di ko ndokkeel di ci nuyu bu baax Ibou Diouf am na góor ñoo xam ne daal la macha allah seen nekkin ak ni ñu laabire ci biir njaboot taxu ñu may wax. Mhm. la ma ciy nuyu Makhtar Diop bu baax a baax a baax baax di ko ñaanal yàlla taxawaayam yàlla yàggal ko te dëgëral ko di la laaj oustaz du Ndiaye Seck. Mhm. lii ñu wax léegi ci oustaz Cheikh Ndaw foofu laay jëlee li ma lay laaj. Mhm. moo di fitna jigéen ci biir kër ba tax Seydina Mohamed gàddaay dem. loolu jigéen di ko def fitna. léegi dafa mel ni pour di ko def tong ko sa jëkkër moom la jigéen jël def ko arma. loolu lu mën a yàqal liggéey jigéen ci biir këram digganteem ak borom këram. waaw parce que soxna Ndaak <coughs> fii oustaz. jeexale laay wax. <coughs> yonent bi alayhi salaatu wa dafa baaxoon ba. kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatasaabaxu maha azwaajihi mm-hmm. daan na toog xooloon Ndaak rek addis boobu. oustaz duma bàyyi maa ngi wax ci moom borom xam-xam la fa tafakal yenent bi daan na rawante ak ay jabaram rawante ñuy rawante waaw rawante ay cheikh mu ne am kaa leen rawante al musaabaxatu te ku sa jabar ñu ni ko xool kii dafa ragal jël kii daa benn bi Xadija euh, Aïcha rawoon ko ci benn ku fi ñu ñëwaat yenent bi mën ko fa haasi bi tilka dégg nga <laughs> raw bii ma la raw fay naa ko ca raw ba li nga ma raw est alxuraan wax ni Mm-hmm. hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ndax dëggal wax bi mm-hmm. jigéen ñi ñooy seen kiiraay waaye yéen it yéen seen i kiiraay mm-hmm. est-ce que xam nga ni góor célibataire sama cameraman yi xam nga fu ñu toll ku ci amul jabar dafa mel ni dangaa def taati neen waaw la ko wax loolu képp bokk ci moom ñëpp ci jaar nag moo tax yonent bi wax génn ci loolu moom yonent bi wax ci addis bu rëy ba ni yaa maxcharal shabab من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرش خلوا بقى ينتبه عليه الصلاة والسلام وخيم ستيوم شيكم داك ين غني ين لا وخ كو أم تي ين لوم تك جبر فليتزوج ريك سنغا فاغوغ فاغوغ دهام لومي فري تي هاب تي والو غران فليتزوج نتك جبر ين كولو تخ من في انه تك جبر اغدا للبصر داي تخ سبت نيون دوتو خول دغ ko lu la romb rek manouté manouté wax sa lil farj te day ñongal sa nah, pay parce que pay muy ci gor muy ci jigen dafa am lo xam lu muy laaj ta yalla tegg tagg na maryam te mhm. jigéen dafa wara tey tiy ba dee wa mariam axtana lu ci ahsana farjaha fa nafaxna fi ruhina wa sadaqat bi kalimat rabbi wa kitabi wa kana min alxaanitin xool saytina mariam ni ko yalla ñongal war ndax ñongal payam waaw fu fu fu fidèle fu doy waaw fidélité fidélité maandu waaw bu demee ci sóotu Mariama sax dina fa wax lu bari ba Jibril ñëwee ni ko dama lay may doom dafa tiit ni ko yow man xaw ma man góor musuma laal parce que Allah loo bëgg tey man ko dañ maa yónni pour ma may la doom ak suñu jigéen ñi tey gaa yi sax dina deetaan ndeysaan xam naa ne dafa am benn baat boo xamante ni mag ñi xamuñu ko woon mm-hmm. muy baatu mbaraan mbaraan na àdduna mbaraan booy wontee mag ñi duñ ko xam ci wolof mm-hmm.

Mm-hmm. xoolal zoophilie. la tubaab bi jor ñoo topp. tubaab bi dem na noo dama dama dem ba dem na zoophilie. zoophilie zoophilie waaw zoophilie mooy ñi sëy bay may. Mm-hmm. dem ba seen instinct sexuel do ñu boo tekk ben place yépp ay fitna la ci biir kër yi ci biir sëy yi bari nga yàqu tay té ñi duñ ko wax. zoophilie deug la di sëy nii bay may di sëyee. haram yàlla dafa am fu mu la limité. xaraam nécrophilie nak mo gëna a bon mais faire l'amour avec les morts. koo xamante ni dafa dee aux États-Unis on a fait des enquêtes yenn morgue dangay gis ñoo xamante ne ay gàtt ñoo xam dañ daan fa ay nit ñoo xam ne dañ di jëfandikoo ak néew yi nga xamante ni teel ak technologie bi nga xam ne technologie de pointe la sëy yu bëri ñoo ngi yàq te foofu lay jógee parce que dafa am fu yel l'islam yemale sëy yàq sa jabar ak bu ngeen dee sëy dafa am fu ngeen war a yem nécrophilie zéophilie yooyu yëpp technologie boo demee ci internet bu lu ne ngay gis ONG yi nga xamante nag tooñu ma leen ONG ci wàllu organisation ñu bari yàqu na tey dañ la jox benn numéro weer rek fekkee met nga sa biir kër nga daal téléphone boo demee ñu la ñun sëy na tas bi sëy bi tas nañ ko loo xam ne teguñu ko fenn te bu ko ma mag ñi dañ daan boole seen lépp def ko ci penc mi kër bu mm-hmm. mag lan daan nekk bu si problème amee ñu waxtaan arrange ne léegi day boo demee tey fële ca waa almad yow sa jabar sab xaj doon bu problème amee kuy atte kenn te yàlla neen bu problème amee ci biir sëy yi na benn délégation ku jigéen ko ñëw benn délégation góor ko ñëw ñu ñëw ñu ñëwee toog waxtaan rek yàlla neen ma dinaa yow dinaa intervenir am na façon ngi sëy yoo xamante ne oustaz jun na ko léegi bu ci kanamee daan ci gënd parce que fase mooy lan taxrifu a talaaxu wa xillu rabitu li ziwaaj bi lafzin sareexin ka anta taalixun aw kiniyaatin maa niyatin noonu la ko borom xam-xam yi définir mooy lan nee na talaaxu fase uwa moom xillu raabitatu mooy takk mooy takk takk bi nga xamante ne li ziwaaj moo takkoon ci couple yi ci jëkkër ak jabar bi la bi lafzin sarixin la diw fase naa la que anta taalixun yow sama jabar ji de yow fase naa la aw kinaatun maaniyatin wala nga daan ko eh mën ngaa dem seen kër waaye man ngaa dem noppali ji demal toog say waajur ànd ak yéeneen da nga koy fase du ko jóg rek fase ONG yi ñoom it tooñ ma leen nag <laughs> bu ñu téléphoné mais ñu si yu bari tey yàqu na fa la jaare la jox numéro benn rek nga ñëw rek ñu tas na wala dem leen tribunal rek ñaa di kase sax ndaa nga dem ba ci kanam. kon loolu euh, oustaz du Ndiaye Seck loolu yaa ngi génn point bu am solo. solo boo xam ni war nañ ci waxtaan boole ci taxaw seetlu bàyyi comportement yi ci biir kër yi dina tax diggante borom kër ak soxnaam yàqu. té lolu lu jara bayyi xel la may nuy bu baax amet mbay ma jaaga ak Awa cham sama dom ju jigen ji di ñaanal yalla ndey Xadi kër Ousmane Faye yalla nako yalla defal jàmm saxal ko ci seyem di ñaanal ndey Faat sadi bu job na agale yaay ndey Maysa sama xarit bi di ñaanal ñi nga xam ñi ngi nek ci centre de santé de yépp di sétane émission bu mag bi ñuy wax yobul nga xam ñom luñu mëna def rek bu fukki waxtu ak benn jot bayinañ ko ñëw toog di seetaan la chaine sénégalaise ci émission bu mag bi ñuy wax yóbbal di ci ziar ndey seen bu ñang mbokk ndeyam Mame mbay Niang nga xam ni Serigne ab Thiaw Laye rek la gëm doyloo ko di def lu baax di wax lu baax ak Maguette di leen ñaanal yàlla bu baax a baax baax di ci ziar bu juuf yal na ko yàlla may jàmm am na jigéen ñoo xam ne am na góor ñoo xam ne daal oustaz Cheikh Tidiane Ndao mm-hmm. euh, jaruñu may wax ndax tabarkàlla macha allah fexe nañu ba ba ba ay soxna. Hmm. ci mettre ko à l'abri du besoin mooy xañ ko mu xemmem wala mu xool leneen. Hmm. ñooñu nga xam ni bëgguñu dara manqué seen kër. Hmm. lépp dañuy jëli di indi. di la jox di la bëggal ngay dem di uti di def ni say nawle. parce que may ko sax wan ko yoon mu wute xaalis moo gën. am na ci góor ñoo xam ni dinaa leen ndokkeel Mohamed Thiam Rasoul ñu koy wax Masek bu El Hadj Madoun Thiam. di ci ñaanal yàlla Papa kon aji ture di ko ñaanal yàlla jàmm muy góor ñu am jom ñoo xam ni xaaruñu kenn ak El Hadj Birane Lo sama borom kër ñoo xam ne daal ñi ngi jàppale seen ay soxna ci seen biir kër bëgguñu ñu ñàkk dara indil leen assistance indil leen di leen xool sax am na góor ñoo xam ne dañ lay xool ba xam lan ban état d'âme nga nekk mm-hmm. loolu lu am solo la xam naa oustaz Cheikh Diagne sax dafa bëgg toujours ñuy wax ci jigéen ñi seen ayib ñuy wàññi naqari deret xadar jigul jigéen <laughs> farata ju ëpp jigul jigéen jigéen dafay am jàmm mhm. jigéen dafay am salaam jigéen dafay nooy jigéen dafay wàcc jigéen du rëy mhm. bu ñëwee indi xadaram sax lu mu tàng tàng tàng boo ko mayee ndox mu naan bàyyi ko tuuti cinq minutes mu dal bàyyi ko moom kese kese kese su ñàkkul boo ñëwaatee ni ko tey da xaw mel ni sa kanam dafa xaw diis mbaa jàmm la waaye boo melee ne man bu ñëwee nga ne kan defewun la fi dara nag fii moom kenn waxu la fi dara <laughs> yaa indi la sa tàngoor daal di seytaane daal di allo allo salaamaaleykum waaw dem na xam naa dina ñëwaat

bu baax baax yàlla may ko lu ko wétali yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di ñaanal aram koor Abdou Lahad jàmm ak salaam sama ñees yooyu yëpp di ndokkeel ak su mbay bu baax a baax di ñaanal borom këram yàlla na ko yàlla yombalal lu mu ko yore Oustaz Cheikh Tidiane ñu waxtaan daal ci ay bu jigéen ñi sama mbokku jigéen ñi bari nañu xultu mhm. naqari na nan deret danañ waaxul ci kër gi buñ la meree dóor xale yi saagalante am na loo xam du orma sa boroom kër toog nga dóor doomam saaga ko du orma mi ngi mel ni nga wax ko ko. te loolu a bàyyi xel la ñu dil si waat daal di waxtaan xam ne ki bàyyi ñëpp tànn la daal. Mm-hmm. jar na bàyyi xel Oustaz Cheikh Tidiane Ndao tabarakallah maa ngi jégalu sax auditeurs yi parce que ma xaw a jagadi tuuti dama nekkoon ci ay activité fan yi wallaay tey kenn amoon benn conférence bu ma doon def ci waawoon kenn wérul tabarakallahu jóge fa ñëwaat am beneen bu ma doon def fii Dakar ma xaw a sonal tuuti waaye tabarakallahu soxna si xam nga l'islam dafa organiser kër organiser kër dañuy laaj baatu passé kan moo ko moom ndax jigéen a ko moom wala góor a ko moom. fase fase ndax jigéen sañ na fase jëkkër ji wala góor moom moo sañ a fase. loolu lu ci lu ci lislaam jigéen de bu ma woon kàddu fase. mu mel ni kon lislaam baatu fase góor la ko jox. la mu séentu ci moom nag muy muñ ak sago ak dal. yéex ngee génne. waaw moo tax mu jox ko ko jikko la xool ci moom moo tax mu jox ko ko. Mhm. su ñu demee ba nga xamante ni nag loolu nekkatul ci ku góor ki. Mhm. daanaka jël ko jëloon ko jox ko jigéen ji sax <laughs> moom mooy ëpp solo. kon tabaarakallaahu li ñuy dénk góor ñi mooy bu leen yàlla joxee baat bi. Mhm. dafa am lu mu séentu ci yéen. mooy muñ. sago ak dal ak teey baat bi balaa génn nee na na ko seggaat ah waaw damay dégg ñu ne sëñ Babacar si daan wax ne radiallahu taala anhu bu jigéen ji soxlaa fase ci yow nee na fexeel ba fas wa ca wudd wa sax bu ko tudd fas wa fas wa ca wudd wa nee ndax baatu fas wa boné fas rek bala nga yegg mu ne voilà tudd bi fase dama <laughs> pour sét nu mu génné ci sey bi oustad wax deug góor baal ma dog la fofu uh-huh. góor ga dënd ko dé fase nga sa jabar mu ni da ngeen ni jum déggul leen li wax dé uh-huh. dama ni ko uh-huh. fase na la ci bon bi way fase wu bal la kay mu ngoog mu ngoog kon tabaarakallaahu baat la bo xamné dañ ko wara a làq sori mm-hmm. waaw motax mané ci diine nasaraan mm-hmm. ñoom nanguwuñu fase ñoom sëy mom, dañ né du jeex ilal abad <laughs> waaw ñom loolu lañu japp motax bo démé ci diine nasaran. nasaraan foofu nag ñoom dañu fi juum ndax dëgg yàlla mm-hmm. eh, jigéen ji itam du jaam waaw tabaarakallah wala toog noonu rek nag eh, amatul ku ko dëkkoo amatul ku ko dundal nangam ak nangam yooyu day indi fitna. dëgg la kon tabaarakallahu solution bi lislaam indi. Mhm. moo baax. Mhm. mooy bu ñu demee ba nekk gi mënatu mënatu la nekk. Mhm. kenn ku ci nekk nag eh, na nga dem nag ci dem ba gën a rafet. waaw dem ba gën a rafet. tabaarakallahu su ko defee kee dàq fële wërsëgam ki dàq fee wërsëgam. Eh, dafa am nag lu. benn kilifa wax daf ne mm-hmm. sëy bu nar nee na jaral na ma man lu ma am ci alal bu fekkee alal la koy defar mm-hmm. ma def ko ca mm-hmm. waaw nee na sëy bu nar a tas jaral na ma bu dee ne dañuy dox fukki junniy kilomètre nee na ma dox ko ngir sëy ba bañ tas bañ a tas nee na sëy bu nar tas jaral na ma bu fekkee waxay tax du tas. Mhm. ma wax ba sama bëli xotteeku. Mhm. kon tabaarakallaahu ñaar ñiy sëy fokk itam ñaari famille yi te mooy goro yi am taxawaay. Mhm. moo tax suñu boroom wax ne bu sëy demee ba yëngu. fa baathu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha nanu seet ñu maandu te rafet xel. ci mhm. ñaari famille yi ñu toog waxtaan. Mhm. waxtaan nag bu amee. Mhm. ragal naa ne lu naroon a ñaaw rek. mën naa rafet. dëgg la kon tabaarakallaahu euh, soxna si daal li ñuy sant euh, nit ñi. moo di ne sëy jaamu yàlla la. sëy daal tabaarakallaahu du bànneex. dëgg sëy kóllëre ngi ci biir. ndax dañu wax ne. képp koo xamante ni amuloo kóllëre amuloo diine mm-hmm. kon yonent bi sallallahu wax ne jigéen daañu ko tànn ci ñeent mm-hmm. dañu ko tànn ci rafetaayam ndax ñu bari moom la ñuy tànnee jabar baax na waaw gis gis xale bi rek rafet na jekk na nga dem takk ko loolu moo tax yonent bi jiital baatu rafetaay ah moo ko jiital ah, waaw loolu la wax daf ne daañu takk jigéen ngir rafetaayam daañu ko takk ngir alalam daañu ko takk ngir askanam hmm. daañu ko takk itam ngir diineem léegi nii mu ko jiitalee daanaka noonu <laughs> rek lay doxe hmm. jigéen ji ñaare Eh, li koy dugal ci sëy boo dee xool la ci ëpp boo doon xool tey téeméeri jigéen mën naa wax ne 80 pour cent yépp li leen dugal ci ñu takk jabar mooy rafetaay ba moo tax. ñu dugal ñu ñu ñu takk leen. yonent bi nee na baax na. Mm-hmm. nee na wante itam am na ñoo xam ne ala lay tax ñu takk jigéen. gis mm-hmm. leen ne ndaw si yor na rek dee nga tax ñu dugg ci. waaw loolu itam bëri na ci dëkk bi léegi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni moom askan askanay tax ñu ñu ñu takk. Mm-hmm. ah kat moom ah, eh, nu mu tëti ci siyeen yi la bokk wala ci ñi sant taal wala ci ñi sant mbàkke tax rek nga dugg ci ndax askan wa mm-hmm. su ko defee loolu itam baax na ndax tag eh, askan wu baax itam baax na bon mu ne daañu takk jigéen itam ngir diine mhm. waaw mu ne nag boo jëlee ku am diine yonent bi nee na sa loxo xajamul su loxo xajamul maanaam li nga li nga tànn taxul suuf mhm. waaw moo tax mu ne taribat yadaak kon eh, ñaar yi mu mujjee tudd baax na noo ndax mhm. boo tànnee askan wu baax séentu ca ñoom ak mbaax tax nga takk nga takk fa jabar baax na wante bi ëpp solo mooy diine ndax askan wu baax sax léeg-léeg nga takk fa ñu sëyee deret mhm. waaw léeg-léeg nga gis askan yoo xam ne deret la ñuy sëyee waaw ba tax na euh, man di way sama maam euh, sëyee ko ci kër gi dana tax nga jur koo xamante ni tabaarakallaahu euh, du tekki dara mhm. bañ ne sax waaw kii nu mu mën a sant sant yu ba pare mel nii fekk ndey jaa liggéey ca biir kër ga mhm. kon tabaarakallaahu Euh, ñi nga xam ne dañu am askan itam nañu bañ di sëyee deret ndax sëyee deret baaxul sëyee askan baaxul kon daal diine mooy li ëpp solo ndax diine mooy indi muñ diine mooy indi gore diine mooy indi tabaarakallahu euh, ngor ak kóllëre mm-hmm. tabaarakallahu diine mooy indi yërëmante di diine mooy indi dimbalante moo tax yàlla ne ma def seen diggante ma wa rahma mawaddatan man dañuy ma naan sax xam naa ne juróomi minute ma dese man ah, damaa defe ne ñoom tijaan dañoo wàññi sama sama ay simili kon daal mu ngi noonu tabarkaal thème bu am solo la boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, waxtaan ci am na solo ndax wax dëgg yàlla sëy yi ni muy tasee jéggi na dayo man oustaz bëgg naa ñëwaat ci sax ba seet ci fase yi ak ak fase façon fase yi am yi ñu ñëw ci bu yàlla may jàmm ñu fekke ko ma ma jox oustaz du mu tàggoo mhm. parce que wax nañ ma ñu may signalé ñi li ma dese ci simili bariwul ma jox ko mu tàggoo waaw rek li ñuy tàggoo rek soxna ndaag rek mooy aaya ba rek fa isoon ne wax juróon na wadriboon na fil madaji wala mhm. parce que di ñëw sax yàlla dafa mën a organiser dafa am ay système yoo xamante ne teg na ko nee na ci njëkk mooy nga waxtaan ak soxna si dëgg la waaw di neexal nag jigéen góor jigéen nu nga koy neexal nag dëgg wax loolu nag waaye wax leen loolu waaye jigéen ñi tamit dee leen neexal góor ñi mais fa iso na na nga waxtaan ak moom ci loo bëgg or maa mee may la loo bëgg ay bees yi ma ma jox la dee ko di waxtaan ak moom ndax jigéen da nga ko yërëm wax juróom na nag yenn saa nga gàddaay leen tamit daal di xaw a tuut nangu sa bopp ah, buñ la nee nii nga ni damaa feebar tey <laughs> damaa feebar tey su ko defee rek na si dina xam ni ah waa ji xam na mer wadri ba woon na film daal ji in boobu nag moom mooy mooy dernier recours bi ne nan leen dóor waaye dóor yi wax ñu dóor yoo xamante ne day gaañe di dagg yaram ah. yooyu dafa ëpp ah dóor fi bëñ bi toj ah. wadd fi jël wax ñu yooyu mu naaj wax ñu yooyu dóor ci kanam sax kenn du ko def dafa xaraam moo moom la yàlla mujjee indi bul dóor bu dóor bu def waxtu wi jot na sax waaye daal yow loolu mën na nekk tàgg su ko defee jigéen da ko koy tànn da nga koy tànn nag taxayoroo li ñu tufe comme bu mm. ñu leen uroqo da saasum yonente bee ko wax dee leen di seet tan len wax fi ngeen tour seen mani mën yu mm. yonent bee ko wax de mm. ñun ko lu tax mu ne inal uroq dasas ndax sidit day rogalaan mm. tega fofu sa loxo ñu ñaan yalla dig dajé ci aljuma inshallah ci waxtu fukki waxtu ak benn ba fukki waxtu ak ñaar oustad Cheikh Ndaw loy joxe tey yobbal ba ñu ñëwaat ndax nenañ ba ñaari minute la dese tey amna na benn yóbbal bu neex mo ra a jox waaw waxal waxal yobbal bi oustad zou Ndiaye lo indi yobbal tey waaw yóbbal may indi rek ndaysan rek euh, moy euh, hippopotame bi nek fi rek gulumbu mi ngi bëgg reñ nit ñi de yonent bi neen إذا نزل بكم كرب أو جهد أو بلاء فقولوا الله ربنا ولا شريك له يعني في النهاية سبتيش نيوي ولا لمتت ولا بلا يعني الله ربنا لا شريك له ما خاطكو الله ربنا لا شريك له يالا دال ياي سوند بور ياي سوند بور يا ñu sak ya ñu mom kenn du la bokal ak len tay sa ci tidiane tay loy jox yobul li may joxe yóbbal rek mooy li yonent bi waxoon Seydatuna Fatima. micro euh, sa micro sa <laughs> dafa sonn. li ma li may joxe yóbbal mooy li yonent bi waxoon Seydatuna Fatima. Mhm. mu jox ko benn ñaan mu mel ni dafa xaw a sàggane ñaan gi. waaw yonent bi daal di ko ci gëdd nag. ne ko mhm. lu tax ma jox la ñaan gi nga koy sàggane. Mhm. dee ko ñaan. waaw. ne ko boo ko dee ñaan sa léppay dox sa dara du tardé. ñaan gi nag moo di yaa xayyu يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا يلا يا يومي دن يا قيوم يومي من سبب dégg nga bi rahmatika astaxiisu maa ngi sàkkoo xettiliku ci sa yërmande mm-hmm. aslix li sha'ni kullahu yàlla nga defar sama mbir yëpp mm-hmm. lépp nag bul bàyyi dara wala ni illaa nafsi tarfata aynin te bu ma seetaan nag lu toll ni tarfatal ayn surveillé ma ci côté bépp ñaan googu la yonent bi gëdde woon doomam ji nga xam ne moo doon dogitu resam mm-hmm. di sayyidatuna Fatima ne ko lu tax ma jox la ko ba pare nga bàyyi ko dee ko def pis bu ne kon ku bëgg say mbir di dox na nga jàng ñaan googu wala leen joxe comme yëbal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw oustaz kontaan naa bu baax a baax yal yàlla wéral leen mm-hmm. yàlla sàmm leen di wax rek suñu mbokk partenaire yi ñu àndal ñuy tapis rouge ñu ngi avenue Cheikh Anta Diop ku leen soxla rek soo mënul dem nga wootee ci 33 842 63 42 wala nga def 77 865 37 wala nga def 70 703 80 08 wala nga woté bo bëggé yu bax yi nak bo defaree salon yu melni ba paré def say rido nga ci pompe yu bax yi ñom Adjaratou Sophie ñom Adji Kankou ñom da Yacine Mbaye ci Cambérène maam Marème madame Guèye ak ñom asfay ñom ñoom xamna ni yi nday xat yii rek lay bégale dama jaaj gorom bu bax bi waaw ñu woté Paline cosmétique rek nekk ci avenue Blaise Diagne 25 avenue Blaise Diagne ku soxla rek nga woté ci 77 446 52 52 wala nga woote ci 77 976 86 82 du nuyu bu baax maire yi nga xam ne mooy sama assistante bu sës ci man rek Ndiaye Maysa di ndokkeel bu baax rakam yëpp ñoom Assoumalik Papa xalifa Cheikh Tidiane maman du fi sama goro ñoom Awa di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama yaay ajartu Marème Fall yàlla may ko wér sàmm ko di ziar ajartu ñaan a gay bu baax a baax di nuyu Papa sama xarit. di ñaanal matu jaane sama rakk ji yàlla na ko yàlla may lu ko lu ko attan di ñaanal mbéyte rasul nag jàmm ju yaatu ju ñëpp xaj di ziar sama mbokk Tiwaawan yëpp. Mhm. di leen nuyu di teg ziar bi nag ci loxo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum borom ñetti xalifa yi. di ko teg ci loxo Serigne Abdou Aziz Al Amin mi nu wóolu yàlla dëgëral taxawaayam may ko wér ci barke yonent bi sàmm leen ñoom ñëpp. di ziar képp ku bokk ci kër Seydi Hadji ak foo mën a nekk maa ngi lay ziar ci àjjuma ji di leen ñaanal jàmm. di ñaanal sama waa kër Serigne Touba yëpp di ci ziar soxna Bali Muntaxa di ñaanal sëñ Mbàkke Madina bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla jàmm ju yaatu di ko ñaanal mboolu mu jullit yëpp ak képp ko saxoori seetaan la chaîne sénégalaise ñu ngi lay nuyu di leen dox daje altine bu jot àllarba bu jot àjjuma bu jot fukki waxtu ak benn ba fukki waxtu ak ñaar ci la chaîne sénégalaise bu leen yëngu altine damay maye lu rëy laay maye ku bëgg xam la laay maye nag indi démb ak cosaan ak aada na nga ñu jàpp ci fukki waxtu ak benn fukki waxtu wa salaam di ñaanal ñu nu àndal suñu mbokk caméraman yi la régie di ñaanal ñëpp technicien yàlla may leen jàmm yokk télévision bi ba mu àgg fu wees seen njort may ñu wér taxawaayu dëgër sàmmal leen seen ngor ak seen diine di jox daje beneen yoon ci waxtu wi ci la seen sénégalaise jërë ngeen jëf